yaa ayuha alladina amanu ttaqu llaha xaqa tuqaatih wala tamuutunna illa wa antum muslimun yaa ayuha annaasu ttaquu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa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 أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nekk ci dëkk bi nekkal fi lislaam muy ilimaan yeeg jàngalekat yi di am mbégte itam ci teew fii dajeeg sunu mbokki jullit nu bokk def santaane suñu boroom tabaraka wa te mooy fàttalente laayante biir ndax fàttali googu suñu boroom ne dana jariñ ku gëm di bëgg itam ci mbooloo bi nga xam ne ñoo taxawal waxtaan wi ñu ko déggee muy ay mbokki jullit yu ànd daje ngir lislaam lislaam rek boole leen loolu lu am solo la te dana yombal bu baax itam ñiy liggéey ci lislaam loolu dana leen jàppandalal seenu liggéey ndax benn kuréel bu nekk bu bëggoon a woote ci aw turam loolu dana nekk coono ci ña ñuy woo waaye ñoom ñëpp nag suñu àndee xam ne kuréel yi yëpp ay tur rekk la waaye li am solo dëgg dëgg dëgg te boole ñëpp mooy lislaam loolu ku ko yëg ba mën a jéggi tur yooyu mën a fekki sa mbokkum jullit loolu lu am solo la loolu moo tax lislaam a jóg ñu ñaan yàlla mu gën a dëgëral moom bu baax buntu bi ñu war a waxtaani nag mooy al islaamu aqidatun wa suluk mooy lislaam di diine ji nga xam ne moom la yàlla tànn ngir doomu aadama yi di ko ci jaamoo mu tudde ko l'islaam wax ne wa raditu lakum al islaama diina gërëmal naa leen l'islaam ngir mu nekk seen diine waxaat ne inna diina inda allahi al islaam diine day fa yàlla jenn rekk la mooy l'islaam waqaat ne wa man yabtaxi gayra alislaami diinan falan yuqbala min wa huwa fi l min alxaasirin mu ne ku dem di sàkku beneen diine bu dul lislaam deesu ko nangu lu mu ca mën a def yàlla du ko nangu te ëllëg day bokk ci ñi perte lislaam boobu kon lu rëy la ñi nekk ci biir mu tudde leen ay muslimoon huwa alladi sammaakumul muslimiina min qablu nee na moom moo leen tuddee ay jullit lislaam boobu nag kon dana jar ñi di ko nafar ngir ñu mën caa nekk dëgg dëgg dëgg ndax ca la ak mucc nekk adduna ak àllaaxira islaam boobu nag ñu ne aqidatun pas-pas la wa sulukun waaye itam aw melokaan la aw doxin la comportement la loolu kon mooy sunu bind bi ñu bëgg fàttalante ak mbokk yi tey ngëm yàlla bu dëggu saa yu saxee ci xolu doomu aadama bokk ay jeexitam dana feeñ ci aw doxiinam ci aw meloom ci ay jëflanteem loolu moo tax bu ñu dee xool doxiin yu bari ci doxiinu jullit ñi ci seen wàllu bopp seenu melo seenu jikko ak ci seen jëflante ci seen biir ñuy gis léeg-léeg muy doon melokaan yoo xam ne yu am ay rëq-rëq yu sori njub gi lislaam jàngale la loolu ku ñu ko gisee dafay nekk tegtal ci ne pas-pas ba pas-pas bu wér ba war a mën a jeexital ci doxiinu doomu aadama pas-pas booba moo doye di sax moo fa nekkul moo tax kon talaasum muy jàppaloo gi am diggante pas-pas ak melokaan ak doxiin loolu jullit da ko war di bàyyi xel bu baax a baax a ndax ñu bari dañuy jàpp ne ñaar yooyu mën nañoo taqalikoo nit ki mën na ne ku gëm yàlla la ab jullit la waaye aw melokaanam aw doxiinam mel neneen noo xam ne wuute na ak ngëm yàlla googu muy woote woo ñoom ñaar dañoo war a ànd ñoom ñaar mënuñoo tàqale ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa xam la ne ngëm yàlla ay xaaj yu bari la te mooy lépp loo xam ne ab jullitam koy def walla mu di ko baax loolee ab xaaj la ci ngëm yàlla lépp loo xam ne ab jullitam koy def te diineem sant ko ko ak lépp lu muy baax loo xam ne diineem a koo ko baloo loolee ab xaaj la ca ngëm yàlla ga ndax ngëm yàlla moo koy poussé ba mu def la muy def wala mu baax la muy ba moo tax ñu jële ci abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al imaanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah wa adnaaha imaatatul adaa an tariq wal xayaau shubatun min al iman muttafaqun alayh yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ngëm day mat na juróom-ñaar fukki xaaj ak lu topp wala juróom benn fukki xaaj ak lu topp mu ne nag xaaj yooyu ba ca gën gën jaa mooy wax gi ngay wax laa ilaha illa muy wéetal gi ngay wéetal suñu borom tabaraka wa taala mu ne nag ba ca gën a suufee mooy fekk luy lore ci kaw yoon nga toppale ko loolu ci ngëm yàlla la bokk te loolu ñu bari dañuy jàppale sax doo am solo lool waaye ci ngëm yàlla la bokk kon li dox diggante laa ilaha illallah ba ba ngay egsi ci jëf jooju nga xam ne yaa ko def rek ci sa coobare waaye ngëm yàlla moo la ci poussé kon diggante bi li ci nekk lu bari la te loolu lépp ci ngëm yàlla la tabbi mu ne kersa ab xaaj la ci ngëm yàlla loolu dañuy tegtal ne kon mbooleem jëf ju ñuy jëf dafa am la ko boole ak ngëm lu ko taqalee ngëm ngëm a ko lal lépp lu ñuy bay itam ngëm a lal bagañ ba loolu buñ ci dee joxe ay tegtal bu ñu delloo ci alquran ak sunna yonente bi alayhi danañ ci gis tegtal yu bari bu dee ci wàllu jaamu yàlla yi suñu boroom tabaraka wa taala lu mu ciy digle da gis mu jiital ngëm woo ñi nga xam ne gëm nañu digal leen loola kon ca ngëm ga ca la ndigal la tege bu dee tere itam da gis mu woote ci ngëm tere leen kon la tax digal leen mooy ngëm ga la tax mu tere leen itam mooy ngëm ga ñu gëm mooy li ko boole ak ñoom mooy accord bi dox kóllëre gi dox suñu digganteeg suñu borom tabaraka wa taala ba tax mu di nu digal ak di tere kon lu kóllëre googu gën a dëgër muy ngëm gi ci la ñuy gën a mën a taxaw ci ndigal yi waaye ci la ñuy gën a mën a taxaw itam ci bàyyi tere yi bu jëlee wàllu làpp day gis mu ne yaa ayuha alladina amanu ida qumtum ila lsalati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsaxu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu ila axiril aaya gis nga yaa ayyuha allazina amanu bi muy digle njàpp dafa woote ci ngëm ne yéen ñi gëm yàlla bu ngeen jógatee jëm ci julli da ngeen raxas seen xar kanam raxas seeni loxo ba ci seeni conco masaa seen bopp raxas seeni tànk bu fekkente ne da ngeen yore janaba sangu dafa war ci yéen ngeen sangu wa in kuntum junuban fattaharu waaye ñan la digal loolu yaa ayyuha alladina amanu kon loolu ku amul iman doo ko mën a def defin ba nga xam ne moo ca war nga ñëw ci julli mu ne yaa ayyuha alladina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul xayr la'allakum tuflihun suuratul hajj ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ba tey mu ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ngëm gu dëggu irkaaw na ngeen rukkoo wasjudu te ngeen sujud te ngeen jaamu seen boroom te ngeen di def lu baax ndax ngeen texe gis nga kon julli itam lay tax nit ki mën koo taxawee mooy day fekk ngëm dëgër te yi ñu wax yépp comportement la buy feeñ ci bitti ki ñu gis mu jël satalaam di jàpp loolu jëf la ju muy def ñu teg ci suñu bët ki ñu gis mu kabbar di julli loolu itam lu muy def la ñu teg ci suñu bët waaye la ko alimenté ca biir ba taxamu di ko def nag mooy iman ba ca xol moo tax ñoom ñaar mënuñoo taqali ko borom bi dellu wax ne innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawm al axir wa aqama alsalata wa ata alzaka wa lam yaxsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin suratu tawba aya fukk ak juróom-ñett suñu borom ne ñiy dundal jàkka yàlla nga di leen gis ñuy dem jàkka nee na kooka foo ko fekk man amana billahi dafa gëm yàlla ku gëm yàlla rek moo mën a dundal jàkka tabax jàkka nag ak dundal jàkka bokkut ndax jàkka la muy dundee mooy la tax mu jóg mu di fa am waaye jàkka ji lu mu rafet rafet rafet te jaamootuñ fa yàlla jàngaleetuñ fa xam-xam suñu borom nee na ràpp na moom la naan wa man azlamu mimman manaa masajid allah an yuzkara fii hasmuhu wasaa fi xaraabiha fi xaraab nee na ku tere jàkkay yàlla ñu di fa tudd aw turam te tudd ga lépp loo xam ne ak jaamu yàlla la tabbi na ci zikrullah mu ne kookee ma ngay dox ci ràppal jàkka ja wasaa fi xaraabiha ak nag lu taaral taaral waaye ma ngay gàllankoor ñu def fa li tax jàkka jaa ku bëgg a julli ñëw fekk mu tëje wala ku bëgg jàngale ñu ne la dee ko fi mën a defee kookee suñ borom nee na ràppal na jàkk ja suñ borom na ne kiy dundal jàkk nag nee na mooy ku gëm yàlla gëm bis bu mu ba di taxawal julli di joxe asaka teg ragalul ku dul yàlla nga gis ne kon man aamana imaan bi ba tey mooy tax nga mën a dundal jàkka moo tax ci addis boo xam ne abi saidin al xudri radiallahu anhu soloo na ko yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne ida raaytum rajula yataadu l masjid fashhadu lahu bil iman rawahu tirmisi yonente bi alayhi salatu wasalaam ne bu ngeen gisee benn waay mu tàmm jàkka lool bëgg ko lool di ko fréquenté fa mu nee na kooku mën ngeen koo seedeel ngëm seedeel leen ne kii ku ngëm yàlla la ndax li borom bi ne innama ya'muru masajid allah man amana billahi wal yawmil akhir nga ñëw ci koor moom itam suñu borom ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykumus siyam toujours rek nga gis ne iman bi moo koy lal jaamu yàlla gi iman bi mooy tax kiñ koy digal mën koo def kooka it ko digal yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu ci seen gëm farataal nañu ci yéen koor kama kutiba ala alladina min ni ki ñu ko farataale woon ci ñi leen fi jiitu ndax ngeen am ak ragal yàlla naka noonu nga ñëw ci joxe alal joxe alal nag lu yaatu la xam ne azaka ngi ci biir ji farata waaye joxe ji dul farata itam waaye sakku aw yiw la mi ngi ci biir moo tax al infaq moom moo gën a yaatu moo tax mu naan wa mimma razaqnahum yunfiquun yunfiquun joojee asaka nga ca biir sarax yaa nga ca biir lépp ndimbal ya ngay joxe nga ca biir loola itam borom bi ne yaa ayyuha allazina amanu anfiqu mimma rasaqnaakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala xulla wala shafaa walkafiruna hum zalimun suratu baqara ay ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeent gis nga ba tey yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen anfiqu dépensé leen dundule leen ci li ma leen wërsëgal balaa bisa ñëw boo xam ne kat ak xaritoo bu teguwul woon ci ragal yàlla du fa am njariñ réccu sax a cay am intervention bu ñu lay defal itam boo xam ne jógewul ci yàlla mënu faa am man dal la fi yashfau indahu illa bi idni mu ne balaa bis bu jafe booboo di ñëw nag ci ku ko waajalul woon alal ji ngeen am na ngeen ci dépenser lu ngeen waajale bis boobu yéen ñi gëm yàlla nga gis ne kon jaamu yàlla yépp lii tax doomu aadama bi man koo def te rafetal ko mooy nu ngëm yàllaam tolloo ngëm yàlla nag dafa tolloowul ndax ngëm yàlla dafay yokk ak di wàññiku dafa mel ne garab gu ñu jëmbët noonu la ko borom bi tuddee kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba kalimatan tayyiba di laa ilaha illa ka shajara dafa mel ne garab xam ngeen ne ñépp mën nañoo jëmbat garab waaye nag nañu yittewoo garab ga ca suuxat ga ak aar ga ca la koy roor ba garab ga màgg ñi jëmbat ñépp garab tolloowuñu ci yitte jooju day gis ku jëmbat garab sàggane sooxat ba ba garab ga lax wala sax mu dee wala mu jëmbat garab aaru ko ba dara roor garab ga yàq ko wala mu joyal ko noonu itam nag la ngëm yàlla mel jullit ñi noonu lañu wuutee ci seenu ngëm yàlla gannaaw boo xamee ne gëm nañ ko ba noppi waaye nag ca nañ cee taxawee wute nañ ci taxawaay ba nu mu gën a mate nag noonu la résultat bi feeñ ci bitte itam di gën a mat xam ngeen ne nit ñi danañu jàpp waaye même jàpp mi dañ ci wuute ci ni ñuy jàppe gis koo xam ne yitte jëm koy jox nam koy teeyoo ak koo xam ne moom day ñëw rek fexe ba tooyal la muy tooyal rek daal dem julli ga itam noonu da gis ñoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi julli waaye ca julli wiin wa dinañ ca wute loola nag la koy wuutale mooy nu ngëm nga toll rek bu dee ngëm gu dëgër la boroom day sawar ci julli julli day neex ci moom du fa bëgg a gaaw a jóge sax waaye bu dee borom ngëm gu woyof la julli dafa diis ci moom moom la borom wa in kaanat la kabira illa ala alxaashiin ñu ne julli lu rëy lu diis la lu dul ci koo xam ne xolam ak toroxlu akuk yëg yàlla mi ngi ci xolam moo tax nga gis moo melal naafiqi wa ida qaamoo ila salaati qaamoo kusaala naafiq bi nga xam ne moom ngëm sax nekku fa daf koy woote woo waaye amu ko moo tax su bëggee def loo xam ne ngëm ma koy taxa a def day metti ci moom ndax loo xam ne dafa am julli li koy tax a mën a def mooy gëm nga bëgg a julli nag te gëmoo fokk julli ma metti ci yow moo tax mu ne wa iza qaamu ila salaa qaamu kusaala ndax lan yuraa'una naas nit ñi rek ñoo ko tax di def waaye lu mu ci yaakaar wala mu gëm ki ko digle nekku fa moo tax lu ko ci sawarloo nekku fa naka noonu xoolee ci wàllu jikko yi itam te nag war a mën a gën a xool nag ndax sunu pas-pas jokkaloo na ak sunu melokaanam nit loolu rek lañ war a xool ndax mi ngi mel ne garab gi xam ngeen ne meññatam dafa war a jokkaloo ak garab gi garab gi du meññi leneen doo ji mango ba noppi muy meññi darkase mango mango la war a meññi ndax gannaaw doom ba ñu jiwoon muy pas-pas bi mango la woon ko koy pas-pas bi moom lañ ji ci biir suuf ba meññet mi ñibbisee ci kaw mango la war a doon dëppoo bi ñu suuloon ci biir suuf suñu àndul rek kon meññet moomu dëkku fa kon meññet moomu kon dëkku fa doom ba ca suuf juru ko tax borom bi misaal ko ci garab asluha saabit mooy reen bi li ñu ji ci suuf dafa war a sax ci biir suuf dëgër wa faruha fi sama peer bi muy banqaas yi parce que banqaas yi ak xob yi mooy jokkalewaat diggante doom bi ci suuf ak doom bi ci kaw li leen di jokkalewaat ba ñu mën a dajewaat mooy mu génn nag ami banqaas ami xob naka noonu pas-pas ak jikko itam li koy jokkale mooy jaamu yàlla boo nee gëm nga yàlla ji fi muy jaar ba mën a meññaat nag jaamu yàlla yi mooy banqaas yi ak car yi su jaamu yàlla yi wéree nag ca dem nag ba meññ nag andi jikko yu rafet moo tax mu ne wa faruha fi sama doone tuuti ukulaha kulla xiinin bi izni rabbiha kon asluha saabit mooy liñ ji ci suuf diggante liñ ji ci suuf ak meññam mi xam ngeen ne duñu ji rek mu daal di meññ am na fu muy jaar il mu sax génn ay xob génn ay banqaas def ay tóortóor meññet mi nag doog a ñibbisi kon doone gëm naa yàlla rek it say jikko daal di rafet déedéet gëm naa yàlla rek daal di baax déedéet il faut nga jaar ci yoon wi mooy jaamu yàlla nag comme gëm nga yàlla jaamul yàlla booy jaamu yàlla nag jaamu yàlla gi mooy meññ nag ay jikko yu rafet mooy meññ ak mbaax moo tax jikko yooyu itam nag yi nga xam ne nag mooy écran bi nga xam ne jullit boo bëgg xam melokaanam xool ko ci ay jikkoom boo bëggee xam ba xam pas-pasam wér na dëgg xoolal jikko yi boo bëggee xam ba xet ay ja ay jaamu yàllaam wér la mi ngi koy teg ci yoon xoolal ay jikkoom rek lépp ci jikko yi résultat ba ci lay teere ci mu naa bu doon teewoo ndox mi daal mbalka ma muy teere si nga xam ne moom fa a ndox may yem mooy jikko yi mën naa jaar fu bari nag di ñëw mais yow soo ñëwee rek tiimal mbalka mi ci ngay daal di xam ba xam fa ndox may jógee foofa sell na wala sellul fi mu jaar ci yoon wi itam sell na wala sellul ba nu koy tilimal li ci mën a ne rek dana ko àndaale ci mbalka mi bu fekkee fa muy jógee moo sellul soo ko gisee fi mu teere si da ko gis su fekkee foofa selloon na waaye tiwa yi mu romb moo ko tilimal ba xonqal ko itam soo ko xoolee da nga ko gis moo tax jikko mooy nattukaayu jullit boo gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam su mi ko suñu boroom di tagg ci diineem ju mat tëggu ko ci pas-pas tëggu ko ci jaamu yàlla mais ci jikko jëla ko tagg parce que mooy mooy termination bi fi la mbir mi yem si wa innaka la ala xuluqin azim garab gi boo ko doon tagg boo nee meññet ma neex na taggaale gala ca des lépp tagg nga ne kon reen ba dëgër na tagg nga ne kon xob ya naat na ndax yooyu su amul woon du tala meññ meññet mu baax su fekkoon ne garab gaa ngay yànq di bëgg a daanu kooku du meññ day lax su fekkonte ne itam xob ya itam dañ koo gor bam set wecc googu garab tëlta meññ kon boo ne garab ga meññet ba bari na lool rek ku xam jërul mu lay laaj naan la mbaa ker ga dëll naag mbaa reen ya dëgër na déedéet moo tax jullit bi boo ne ku rafet ci jikko la rek foofu la tagg bi yam li muy teg kon mooy pas-pas ba baax na jaamu yàlla yooyu itam wér na ndax pas-pas bu baax ak jaamu yàlla yu wér mooy andi jikko ju baax bu dee ci wàllu jikko itam yi nga xam ne nag ci lañuy gën a gis kéemtaan ci diggante ndax ñu bari ñuy tuddoo jullit sax moom danañ di laal ci julli xanaa julli ga kay dana rafet ak du rafet waaye néewaane ku ko dul def moom naka noonu koor ga jaamu yàlla yépp daal dana ca laal xëy na ca defin wala ñuy wute waaye ci jikko yi nag ci lañuy gis léeg-léeg wuute gu mat sëkk diggante li waroon a am ak li am jikko yi bi ci gën a fés nga xam ne moo ëmb jikko yépp mooy dëggu mooy as-sidqu mooy dëggu kooku mooy jikko bi nga xam ne moo ëmb lépp ndax lu mu génn rek loola njistal lay daal di doon loola ak naafiq lay daal di doon moo tax yowmal xiyaam borom bi tabaraka wa bu ñëpp dajee daf ne yawma yanfa'u saadiqiina sidquhum loolu rek la fa tudd dana bisu tey bii ku dëggu woon sa dëggu ga dana la jariñ tey kon moo lay xamal ne dëggu moo ëmb lépp yawma yanfa'u saadiqiina sidquhum ndax loo def buñ ci génnee dëggu dara du ca des kiy julli te dëggu ci julli gi daa bëgg nit ñi ne rek kuy julli la kooku dara du fa ne kii woor te dëgguwul ci koor gi daa bëgg ñu ne rek mi ngi woor kooku itam dara du fa moo tax dëggu lu mu génn rek dara desul moom it bi ko borom bi déglante yaa ayuha alladina amanu ittaqu llah wa koonoo ma assaadiqin yaa ayuha alladina amanu moom it imaan koy meññi imaan mooy meññi dëggu mu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla te dëggu ci seen ngëm na ngeen ragal yàlla te ngeen nekk nag di ànd ak ñu dëggu ñi ngeen dëggu te dëggu mooy la ca biir ak li ci bitti dëppoo li ngay wax fekk na loolu nga fas li ngay jëm fekk na loolu nga gëm ñaareel ba ci jikko yi alwafa muy matale kóllëre matale engagement yi ngay jël xam ngeen ne wafa moo dox diggante doomu aadama ak moroomam lu ñu kóllërante lu ne kenn ku ne la nga ca bëgg ci sa moroom mooy nga matale ko bépp accord bu dox sa diggante ak sa moroom doomu aadama rek wafa boobu lañ fay xool mooy ndax da matale wala doo matale moo xam ne séq ab liggéey la kay liggéey la mu diggee moom moo tax ñu jël ko na matale defe ko na mu ko diggantee kam ko teqal kooka itam lam ko ca war loolu ci lu mu ko ca war a jox moom it na ko matale ba ci ab sëy noonu kenn ku nekk am na loo war loolu sa morom moo tax borom mi ne wal muufuuna bi ahdihim ida aahadu walladina hum li amaanatihim wa ahdihim raaun gis muy lim ñi gëm yàlla dëgg loolu ca la bokk ñi nga xam ne seeni kóllëre seeni engagement dañ koy sàmm moo tax borom bi ne yaa ayuha alladina amanu awfu bil uqud yéen ñi nga xam ne gëm geen yàlla dee leen matale pas-pas yi accords yi ngeen def pas parce que loo waxanteeg sa morom rek ba ngeen ne waaw juboo leen fas ngeen ko loolu ab pas-pas la uquud la moo xam pas-pasu sëy la pas-pasu liggéey la pas-pasu ànd la pas-pasu xaritoo la lu mën a doon rek pas-pas la yéen ñaar da ngeen koo fas da ngay dégg sax fas pas la ca borom bi digle mooy engagement ya nga jël ca pas-pas ba nga matale ko yaa ayyuha alladina amanu awfu bil uqud na ngeen matale pas-pas yi kon loolu itam ci koy man kiy mën a matale engagement yooyu mooy ku gëm yàlla a ca des di al amaana al amaana mooy ak wóor ak doy ak doy li ñu la doyloo nga doy ci li ñu la doyloo nga wane ci ak doy moo xam wax ju ñu la wax la ne yow lañ ca doyloo bu dee wax ju ñu war a denc la nga denc ko bu dee am liggéey la ñu doyloo la ca nga taxaw ca bu dee lu ñu la jiiteloo nga taxaw ca lépp loo xam ne daal diggante nga ko sa moroomum doomu aadama loolee la muy laaj mooy doy gamu la ca yaakaare nga wane doy googa borom ne yaa ayyuha alladina amanu laa taxoonu allaha wa rasul wa wa antum taalamuun suratul anfal aaye ñaar fukk ak juróom ñaar borom bi ne yaa amanu ba tey yéen ñi gëm yàlla te dëggu ci seen gëm laa taxoonu allaha wa rasul bu leen wor bëgg a wor yàlla akub yonentam ndax lépp loo xam ne dénk nañ la ko te lislaam tax wala ñu doyloo la ca te ab jullit lépp lu muy séq ak moroom ma l'islam baa tax ndax loola du ko wuti ci kudul ab jullit kon nekk gi nga nekk ab jullit moo tax mu jox la cër boobu ba tax na soo ca waree ko moom mais yàlla mi taxoon mu jox la ko moom nga war akub yonentam moo tax mu ne laa taxoonu llaha wa rasul wa taxoonu amaanaatikum wa antum taalamuun te fekk na xam nga xel ne lii li nga ci def ak li nga ci waroon a def bokkul loolu itam la cay dimbali mooy ngëm yàlla gu dëgër moo mën a indi loolu moo tax nga gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi muy tudd mandargay ñi nga xam ne moom dañoo yorul pas-pas bu wér muy naafiq day tuddoo pas-pas mais pas-pas nekku fa mandarga ya mu tudd ne moo ci gën a fés bokk na ca wax lu amut ida xaddasa kazab wa ida waada axlaf wa ida tumina xaan gis nga kon sidq bi ñu waxoon ñàkk na ko ndax ida haddasa kaza kon amatul sidq nekkatul min asadiqin wafa u bi ñu waxoon ñàkk na ko ndax wa ida waada axlaf amatul wafa amaana bi ñu waxoon ñàkk na ko ndax wa ida tumina xaana kon yooyu li tax mënu koo am nag mooy ya koy joxe la amut muy ngëm yàlla ga dëgg ngëm yàlla gu wér dëgg dëgg dëgg moo tax nit mën a matale kóllëre mooy tax nit mën a dëggu ndax dëgg léeg-léeg day metti ci yow dëgg léeg-léeg daf lay condamné daf lay teg ay coono moo tax ku gëm yàlla dëgg rek moo koy man ci jamono bu ne doonte ci kawam lay dal moo tax mu jokkaloo ak li ñuy tuddee al adlu jikko bi ñuy tuddee maandu ko xam ne lamu moom rek lay jël donte lamu moom mooy la gën a metti loola lay jël jox keneen ka lamu moom donte loolaa dàq loolu ku dëggu moo ko man ku maandu moo ko man moom it gis nga borom bi ne yaa ayuha alladina amanu koonoo qawwaamiina bil qisti suhadaa lillah walaw ala anfusikum mu ne dee leen ak maandu ak njub di ko seedeel nag yàlla ndax boo nëbbee mbir mi ba bëgg a jël wet gu wayaf gi nax nit ñi waaye yàlla moom mënoo ko nax moo tax li ngay wax boo ko seedeeloo yàlla da nga wax rek lay dëgg suhadaa lillah mu ne nag walaw ala anfusikum donte nag lu metti li day dal ci sa kaw awil waalidayni wala mu nar a dal ci say way jur wal aqrabin wala mu nara a dal ci sa mbokk yi la jege in yakun ganiyan moo xam ci ku woomal la jëm aw faqiran wala ku ñàkk yooyu yépp daal yow booy seede ak di maandu bu ci séddale kii daf maa jege ci mbokk bu mu ëpp li ko wolof yi waxee naan diw matuma ci seede ab jullit ci ñépp la mat seede ndax ci boppam sax da cee war a mat seede daa war a wax ne maa ko def bu defee erreur koo xam ne mën naa seede boppam kay mën naa seede keneen bu defee erreur bi day wax ne man ñii maa ko def walaw ala anfusikum awil walidayni même bu ko ay way juróom defee mu ne ah sama way jur yi kat ñoo def lii wal aqrabin ndax soo ne mënuma ca seede rek kon yaa ngi farfarloo wa ida qultum faadilu walaw kaana za qurba wa bi ahdillahi awfu wa ida qultum su ngeen dee wax rek faadilu walaw kaana za qurba ak lu mu la jege jege ci mbokk ñu wax loola waxal rek lii dëgg jaaral ci digg bi ndax kóll rek yàlla wa bi ahdillahi aw fu da diggante woon ak yàlla ne da nga dëggu kon nag bul xoole ci keneen moo tax mu ne fallaahu awla bihima boroom alal ji alalam bu tax nga bañ seede ci moom dëgg ku ñàkk ki ak ñàkkamit bu mu tax nga bëgg koo xañ dëgg moo tax mu ne in yakun ganiyan aw faqira parce que yooyu yëpp day jeexital ci ku maanduwul ku dëgguwul ki muy seede bu dee borom alal la am na nu mu koy xoole bu dee ko ñàkk la am na nu koy xoole bu dee mbokkam la am na nu mu koy xoole mu ne nag fallaahu awlaa bihima fala tattabihu l an taadilu ngal la bu leen topp bànneex bam di leen teemaandu wa in talwu aw turidu fa inna allaha kaana bima taamaluuna xabira nee na su fekkente ne nag len ngeen la ngeen xam waxe ko neneen wala sax ngeen du mooyu ne xawma ca dara te fekk xam nga nee na na nga yëg ne li ngay def moom dara ump ci suñu borom tabaraka wa taala suratu nisa téeméer rek fanweer rek juróom nga gis kon jikko yooyu itam ngëm yàlla gu mat sëkk rek mooy tax nit ki man ko am mooy tax mu mën a dëggu lépp dañ koy gis ci biir jullit ñi am ñuy gis taxaw taxawaay ya ñuy taxawee du doon taxawaayu ku dëgg du doon taxawaay kuy motale kóllëre li nit ñi jàmbat ci ak ay war yu leen di dal seen diggante kañu seqal kenn xamul nu mu toll ak maandu nit ki la mu xam mu bañ kaa caa loo wax lay dëgg loolu itam dañuy gis ne léeg-léeg luy manqué lay doon ndax cër yooyu mu ne woon bu leen ko sédd dañ koy sédd da ngay sédd sa bopp lii kat bu ma ko waxee sama bopp lay condamné wala lii kat bu ma ko waxee ci samay jur la jëm wala ci samay mbokk la jëm wala ci boroom alal jii la jëm te kon mën naa am duutuma jariñ ci alal yooya bu tee nga maandu kon la teex mënoo am jikko booba yëgal ne kon ngëm yàlla gu ko gu ko attan moo fa nekkut parce que nag yu diis yi ngëm yàllaa koy attan ngëm yàlla gu dëgër mooy taawu lool ngëm yàlla gu dëgër mooy taawu jafe-jafe yi su ñëwee nga mën koo attan moo tax borom bi tabaraka wa taala bi mu tuddee ngëm dama xam ne ngëm yàlla gi mën a àttan nag tege yi suñu borom di tege muy ngëm goo xam ne gu dëgër la goo xam ne bu ak ñàkk ñëwee ngëm nga du yëngutu bu feebar ñëwee ngëm nga du yëngutu bu coono ñëwee tëje kaso génne sa réew fitnaal la bu ñëwee ngëm nga du yëngutu moom la ne wassaabirina fi lbasaai waddarraai wa xiina albas ulaika allatina sadaqu wa ulaika hum almuttaquun nga kon ñi woote woo ngëm bari waaye ña dëggu nag néew nañu ña dëggu ca ngëm dëgg mooy ñi mën a traversé yii su fekkee nee nga gëm nga yàlla waaye su ñàkk ñëwee dootoo seet nooy wute noo amee rek léegi baax na boobaa kon ngëm bu dëgër nekku fa bu feebar ñëwee noo mën a jàpp ne loo xam ne boo ko yaakaar nga ne soo ko defee wér mën naa am sax du tax a wér waaye nga yaakaar ko rek da nga koy def dootoo ca xool lu diina nangu ak lu diina nanguwul ndax lenn lu ne diina dafa am lu mu la ci may ak lu mu la ci mayul bu dee wàllu wutiin am na nu mu la may noo sañ wute waaye ak noo sañu la wute bu dee feebar war faju am na noo sañ a fajoo am na noo sañu la fajoo bu dee wàllu coono bu dal ci sa kaw am na ca lu ñu la may waaye am na ca lu ñu la mayut ci façon muñ toll waaye loolu lépp nag lay tax nga mën a dékku yooya mooy ngëm yàlla goo xam ne gu la naka noonu itam bëgg nit ngir yàlla ndax bëgg boo xam ne dox na diggante nit ak moroom ma teddu ngir yàlla googee mbëggeel du mën a sax du mën a sax ngir loolee mu ko bëggee loolaa sax wala bu saxee itam dana am ay nëx-nëx yu cay am ndax bu dee bokk la ak mbokk moom day sax ki nga xas bokkal moom yéen a bokk waaye su fekkee mbokk gi dong ngeen jàppante te yàlla nekku ca mbokk nga mën na mujj nëx ba ngeen nekk sax ay noonu moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsi nee kenn ci yéen ngëmam du mat li feeg bëggalul mbokkam li mu bëggal boppam gis nga kon loolu ni mu àndee ngëm bala ngaa bëgg mën a bëggal sa mbokkum jullit li nga bëggal sa bopp day fekk nga am ngëm goo xam ne gu mat sëkk la ngëm goo xam ne gu dëgg la ñu jëlee ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu jëlee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne salaasun man kunna fiihi wajada xalaawata al iman an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yauda fi lkufri kama yakrahu an yuqdaba fi nnaar muttafaqun alayhi yonente bi alayhi salaatu wasalaam de ñett ku mu nekk ci yow da nga yëg neexiitu ngëm yàlla caf ko ngëm yàlla ngëm yàlla dafa am caf ko boo ko xam ne boo ko xasee mos ba mu sax ci yow bépp coono bu ñu lay tegati te ngëm gi tax caf ka googu dana tax nga mën a dékku coono boobu mu ne liy taxam mos nag caf ka ngëm yàlla googu ñetti yëf la bi ci jëkk mooy yàllaa kob yonentam gënal la lu dul yàllaa kob yonentam ne ndigali yàlla bu xasee teew ndigali keneen wala leneen lu mën a teew tàmbalee ko ci sa ndigali bopp sa ndigali bànneexu bakkan teew ndigali yàlla teew ndigali yàlla ngay jiital ci sa bànneex boobu ñaareel ba mu ne suy bëgg nit du ko bëgg lu may ngir yàlla bu fekkente ne booy bëgg nit doo ko bëgg ngir ne rek danoo bokk doo ko bëgg ngir ne rek daf maa amal njariñ lu teew doo ko bëggee ngir ne moom daf ma bëgg waaye danga koy bëgg ngir yàlla melokaan yoo gis ci moom yu gërëm loo yàlla yu gërëm loo yàlla ki ngay bëgg ngir yàlla itam gis bëgg naa ko yàlla waaye day fekk kookee bëgg ngir yàlla gis ci moom melokaan yu neex yàlla ci ngëmam ak jaamu yàlla ak jikkoom yu rafet nga bëgg ko ci loolu ñetteel ba nee nit ki bañ a dellu ci kéefër ni ki mu bañee ku ko jël di ko tàbbal ci safara nit koo jëloon tey bëgg ko yóbbu ci ab taal safara lu mu mën ci lu ko mën a xettali ca loola dana ko def naka noonu nag ku la woo bëgg laa yóbbu ci loo xam ne kéefër la mi ngi la jëme safara moo ma tax moominu ali firawna bi suñu borom di nekk li suratu Gaafir doon wax ne yaa xaw mi maa lii ad'uukum ila najaat wa tad'uunanii ila naar ah mu ne waaw sama bokk yi lan moo tax man ma di leen woo bëgg ngeen mucc yéen ngeen di ma woo jëme safara ñu ne ah, ñu koy la jëme mu ne tad'uunanii li akfura billahi wa ushrika bihi maa laysa lii bihi ilm loolu kay mooy woote jëme safara ginnaaw yéen a ngi may woo di ma weddiloo yàlla di ma woo ci bokkaale ak yàlla kon dafa mel ne yéen a ngi jàpp ci sama loxo jëme safara kon nag ni ngay bañ a ku la yóbbu safara noonu ngay bañ a ku la proposé loo xam ne bokkaale la moo xam da ngaa feebar mu la koy proposé wala da ngaa ñàkk la boo defoon nangam ak nangam sa ñàkk gi da ci jóg wala soo defoon nangam ak nangam sa bi da ci wér wala defoon nangam ak nangam li ngay yóotu da nga ci jot kookee bu fekkee loolee mu lay wax lu mën a yóbbu nit ki ci kéefër la wala bokkaale dafa mel ne mi ngi jàpp ci sa loxo jëme sa kaw itam lekk lu lew di fàggu lu lew te di ko lekk loolu itam ngëm yàlla moo ci mën a dugal nit moo tax borom bi ne yaa ayyuha amanu kulu min tayibaati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyahu taabudun suratul baqara ay téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar suñu borom ne yaa ayyuhal lazina amanu ba tey yéen ñi gëm yàlla yi muy wax yépp meññatum imaan la imaan bokk na ci la muy meññ moom ngëm gu mat ak lu xalaal kon koo gis faalewul lekk lu lewut kooku kon ngëm ga moo am rëq-rëq ngëm ga moo desee dëgër mu ne lekk leen ci yu teey yi ma leen wërsëgal te mooy lu lew te dagan xalaalan tayiban li ngay lekk na boole xalaalan tayiba xalaal mooy ni ko amee dagan na tayiban lu teey la itam lu jullit sañ lekk ndax mën ngaa am loo xam ne ni ko amee baax na waaye nag dafa nekkul tayib waaw masalan lu xaraam su jullit demoon jënd ko loolu taxul mu sañ koo jëfandikoo ndax loolu nekkul tayyib nekkul lu dagan jullit wa ko jëfandikoo bu doon lu dagan itam te na ko amee daganul amin wa ci boppam daganul yi ki daf ko sàcc wala da koo siif loola itam bu boobaa taxul mu nekk lu teey ci moom naka itam bi muy tere riba te mooy faggu wiin woo xam ne du dagan moom itam ci iman la ko teg yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha wadaru ma baqiya min arriba in kuntum muminin gis nga kon aaya bi iman la ko ubbee iman la ko tëjee ndar képp na la ci diggante iman bi bu fekkente ne gëm nga yàlla yaa ayuha alladina amanu ittaqu llah wadaru ma baqiya min arriba del si waat ne in kuntum muminin benn aaya bi mu tudd ci iman ñaari yoon yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen bàyyi riba ibaada ay façon la waaye daal ba ca gën a fës daal mooy leble alal leble di ko intérêt di loo cee tegaat ndax bor moom waxuñu jaay jënd moom ma ne sa ci am bénéfice moo tax mu ne ahalla allahu al-bay'a wa harrama ar-riba yàlla daganal na njaay ak njënd moom man nga cee am bénéfice kenn bu jëndee fukk jaayee fukk waaye nag bu dee bor la moom danga cee war a sakku payug suñu boroom tabaraka waaye waroo cee wut loo ci am ci ki nga ko lebal ndax yow mi am ba dese loo soxlawul man koo leble ki amul dara nag moom soo bëggee yokkaat sa alal jooju ci kaw moom moomu amul te nga waroon koo yéene yi nga li nga yéene sa bopp muy mu génn ci ñàkkam gi kon kooku boo ko mënta may itam la nga koy lebal buru ca teg dal moo tax bi ne wa in kaana zu usratin fa naziratun ila maysara wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum taalamun nee na ki yoral bor même bu fekk waxuma la nga ko a la fay muñal ko ba mu koy mën fay bu ko taxawal temm ne ko foo jaar may fay wa in kaana zu usra dafa ne ci jafe-jafe fa nadiratun muñal ko ila maysura ba am am jàppandal mu ne nag wa an tasaddaqoo soo ko ko mënoon a sarax sax xayrul lakum moo gën ci yow in kuntum ta'lamun bu fekkoonte ne xam nga bor boobu nga topp naan ko fay ma ma na soo ko moo gën ci yow ndax jotoo te te ngi dox kon li muy tekki mooy yàlla wërsëgal na la lu dul loola kon mën nga caa sàkku tuyaab waaye loolu itam lay tax nit ki mën koo wattandiku muy wàllu jëflante boobu te bokk na ci li gën a fés ci melokaane ñuy tuddoo ay jullit buñ egsee ci jëflante ci wàllu alal rek nga daal di gis rëq-rëq yu baree baree baree bari daal di feeñ kenn ku nekk mel na da nga bëgg a nax sa morom da nga a lekk sa alali morom te loolu borom bi tere woon na ko nee na woon bi ayuha allazina amanu laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil yaa ayuha allazina amanu ba tey yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla bu leen lekkante seeni alal ci diggante bil baatil ci neen loolu dëgg lu yaatu yaatu baatil mooy lépp loo xam ne amul njariñ nga fexe ba jël alali nit ki te yow la ko jox yow baatil la wala la nga ko wax baatil la doo lu mën a nekk kooku lu yaatoo yaatoo yaatoo yépp naxe yoo xam ne danga ko nax nit moo xam ci ngëmam nga jaar ba nax ko ca ba jël alalam day tàbbi ci akulu amwaali naas bil baatil moo xam loo ko jox fii la wala loo ko dig ëllëg la loo ko dig ëllëg loo xam ne jàpp na ne bu la joxee alalam loolee dana ko mën a am ëllëg nga dig ko loola te loola nekk baatil ndax foofa loo fay digee lu fa nit di dig moroom ma amut foofa la fa nekk lépp ci loxol suñu borom tabaraka wa taala la nekk yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah amru boobee nag noo ciy diggee nit te nekkul ci sa loxo wal amru yawma idin lillah amru boobee mbir ma nekk foofee boo amee koo ciy dig dara ba tax nga lekk alalam ci loolu yaa ngi lekk am wàllu naasi bil baatil kooka li muy tekki mooy ngëm yow ma koy def ngëm nekku fa gu dëgër gu la tee def loolu ndax yaa yoo la si ne amano yi boo ci gis ñaari kuréel la yii def leen la yii bu leen def yaa yu la si ne amuloo laa laa taakulu waaye benn bu ci nekk nag iman ba dëgëraayam moo lay tax a def bu dee lu ñuy bala itam dëgëraayu iman ba moo lay tax a ba ba tey nga gis bi muy tere sàngara moom it yaa ayuha alladina amanu rek lay jiital ba tey yaa ayuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijzun min amali shaytaan fajtanibuuhu la'allakum tuflihun suratul maayida ay juróom-ñeent mu ne yéen ñi gëm yàlla te ngëm gi dëggu na ngeen xam ne sàngara ak lépp luy ay xeetam wal maysir carte wal ansaab mooy ay camp yu ñuy samp kuur yeeg njaq yeeg yooyu wal azlam kooku mooy yi ñuy seete moo xam ay tëni la moo xam ay bant la moo xam gisaane la mu ne yooyu yépp rijzun sobe la min amali shaytaan ci jëfi seytaane la bokk kon nag wattandiku leen ko ndax ngeen texe kon yooyu moom it ngëm yàlla gu dëgër mooy tax nit ki mën a ba yooyu mu tere foofu muy sàngara moom mooy tax mu mën a ba carte te gis ngeen carte léegi ni mu tasaaroo ci biir jullit ñi loterie yeeg PMI yeeg façon bu nekk ñu tudde ko nit ñi sax dem ba mel na dañ koo xawa a ndax nag ak lu ñu tere lu ko nit ki def te di ko nëbbu gëm ne ba tey lu xaraam la moo gën a néew danse ci su demee ba nëbbatu ko nag mel na dafa dagan te nit ñi ni ñuy nëbbee sàngara nëbbewuñ ko carte bi waaw am na ñooy romb ca PMI ba bëgguñu nga romb leen ca bis te gis nga ñoo sës de xamru wal maysir ñoo sës ñoo sës mekk kon bu ñu demee bu bëgg koo daganal nag mel na dafa walaabal nit ki jóge ca jàkka ja wala mu jóge ca fa muy jógee jaar ca kayor kees ki bi ba di ko laaj nit ñi di ko romb foofa loolu léeg-léeg sax benn loxo bi kurus ga la cay téye yore programme ba kooku dëgg yàlla li muy tekki mooy wuli wuli yaa yolla si amuloo amono dañ ko woon bu ko bee tuddoo itam dëgguwu ca dëgguwul waaw ndax nag tuddoo gi moom yomb na waaye dëggu ca la ngay tuddoo nag moo am solo borom bi ne ulaika alladina sadaqu sadaqu wa ulaika humul muttaqun moo tax yonente bi wasalaam leeral ko wane daal bépp jikko bu ñaaw boo gis nit ki di ko def bay boo nga waat ne ngëm yàlla gu faible ngëm yàlla gu doye di wala sax ngëm yàlla gu fa jóge moo waral lool moo tax hadiis boo xam ne Abi Hurayra nettali na ko te Buxaari yow Muslim génne ko mu ne laa yazni azzaani xiina yazni wa huwa mu'min wala yasrabu alxamra xiina yasrab wa huwa mu'min wala yasriqu xiina yasriq wa huwa mu'min wala yantahibu nuhbatan yarfau nnaasu ilayhi fiha absaarahum xiina yantahibuha wa huwa mumin yonente bi alayhi salatu wasalaam ne njaalookat bi jamono ba muy njaaloo gëmul yàlla ngëm nekkatul moom ngëm yoratul ci ngëm lu ko mën a dox digganteem ak njaaloo boobu kii naan sàngara nee na jamono ba mu koy naan moom it yoratul ci ngëm ngëm gu dëgër gu waroon mën a dox diggantee ak naan sàngara soosu nee na kiy sàcc itam jamono ba muy sàcc moom it yoratul ci ngëm ngëm gu mën a dox diggante ba sàcc ko mu ne kiy siif lu ñëpp soxla mu ñëw jël ko ngir jël koog dooleem wala jël kook pexeem wala jël kook ñàkk keesam ñëpp siggi di ko xool nee jamono ba nit kiy def loolu moom itam ngëm yàlla gu dëgër gu mën a dox digganteem ak loolu nekku fa kon mu lay xamal ne kon ndëggte goo gis rek muy law ci biir jullit yi xamal ne la ko waral ma nga dellu ca ngëm ga mu ngi mel ne garab gi rek boo gisee xob yi di lax la ko waral ma nga ca reen ba reen baa amatul baq reen baa nekkatul ci baq loolu tax xob yi lax waaye soo jàppee na xob yi ak reen yi dañoo jotewul dara ngay jéem a fab ndox di sotti ci xob yi ngir bëgg ñu tooyat te bàyyi fa reen ba da ngay yàq sam ndox rek waaw da yàq sam ndox rek mooy nit ñi nga gis ñi yor melokaan yu dëng yooyu jéemoo leen a waar ci pas-pas jubbantiwaat seen ngëm lu may di leen waar rek naan leen sàcc baaxut yàlloo baaxut fen baaxut yooyu rek ca nga yem te xamoo ne loolu dafa am lu ko lu leen pousser pour ñu def ko muy ngëm ga mën ngaa bañ waaru jooy ne nun kay bàyyi nan ko waaye booy génn dajawaat ak ñoom ñu ne ci parce que la leen koy téye def lañ amut parce que doomu aadama dafa am lu koy protéger ngëm mooy dox sa diggante jëm ci lu xaram comme amul ngëm gu wér googu nag saa bu lu xaram teewaatee rek mu daal ci duggaat du am lu dox diggantee ak moom ngëmit moo lay pousser ci def li ñu la digal loo ko bëgg bëgg bëgg a def te ngëm gu lay yóbbu nekku ca loo bëgg a bëgg a dem te amooy tànk doo def ko mën a def ngëm gi nag mooy li lay pousse pour nga dem mooy li lay téye itam boo waree taxaw mu taxaw lool ba tax kon ngëm yàlla googu moo mat di daggiwaat bu baax a baax a baax mu leer ba leer ba wér ba noppi nag ñu di ko suuxal nag ndax ñaar yooyu ngay boole bu fekkee garab gi nga jëmbat dañu garab gu baax gi ñu war a jëmbat loo suuxat suuxat tam doo am xel waaye bu fekkee garab gu baax la itam nag te suuxatoo it am ker kon da ngay vérifier ba muy garab gu baax gis nga borom bi kalimatan da ko wutalu sant tayyibatan la wax kalimaat yi bari na lool de li ñuy wax bari na de kon fexeel ba bi ciy dugg ci sa biir xol na nekk tayyiba daraba allahu masalan kalimatan tayyiba ka sajaratin tayyiba waaw ndax kalima xabiisa dafa am kalimaat yeneen yoo xam ne bokkaal ak yàlla weddi yàlla yooyu su fekkente ne sa pas-pas loolaa ca ànd ngëm gu ca mën a màgg gu la tax a a def ndigali yàlla wala mu tax laa bàyyi tereem du fa ne ndax jiwu wa ci boppam moo baaxul waaw ni ñuy tànniw jiw noonu lañuy ñuy tànn itam nag li ñuy gëm li ñuy gëm ci xol dañ koy tànn gannaaw nag doomu adama jullit lu muy def lu nekk pas-pas moo ko koy tax a def waaw ban pas-pas nag ndax it ñu ko waxe pas-pas yi pas-pas mooy li ne ci sa biir xol mooy li nga ji ci sa xol boo ko ci jiyee pas-pas lay tudd ndax fas nga ko ci sa biir xol waaye pas-pasu lislaam bi mën a jëfloo nit ki ay ndigal bàyyi la ko ay tere mooy pas-pas bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yoroon moo ki saxaabam ku yor bu wuuteeg booba bi nga yor du bu baax du la tax a def du la tax a mën a baax bi ne ko fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw dafa leer wa in hum fi shiqaq fa in ku fi tudde woo ngëm yàlla su fekkee gëm ne lu mel ne li nga gëmoon yow Muhammad bi misli misli comme li nga gëmoon kon gindiku na waaye ku gëm loo xam ne nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom xamul loola bokkul woon ak la fas yow nga dugalaale ko ci biir diine kon gindikoo moo tax mu ne wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq suñu dumóoyoo nag wan gannaaw li nga nekkoon yow kon ñoom ñi ngi ci ak ŋaayoo ko juyoo gis nga moo tax foo fekk ñu bàyyi pas-pasu yonente bi alayhi salaatu wasalaam duñ mën a ànd waaw dafa bokk ci melokaan yi ñu bokkaale taqali ko mu ne wala takoonu min al musrikin min alladina farraqu diinahum wa kaanu chia bismillah kullu xisbin bi ma ladayhim fariqun suratu ruum borom bi ne bu leen bokk ci bokkaalekat yi na dañ ne ko waaw bokkaalekat yi luy seen mbir nuñ mel mu ne mooy ña taqale seen diine foo fekk ñoo xam ne seen pas am na lu ca dugg duutuñu mën a nekk benn ndax tawxiid mooy joxe wax daan bu ñu wéetalee yàlla def ko muy kenn rek mu def nu muy benn nu itam loolu moom lañ cay jëlee mooy meññat man cay jële waaye saa bu ñu wutalee yàlla nag ay ndend mu daal nuy def ñu daal di féewaloo ndax kenn ku ne la ngay andi di ko ca yokk du bokk ak la sa morom di yokk waaw waaw waaw bu ngeen bokkoon ak nit ngeen xotti ab tiise ba yàgg ngeen ne ko nan ko ñambaas ah kenn ku ne morso ba nga am rek ngay ñambaase ba la gën a jege rek waaw nga ñambaas bu xonq bu ñambaas bu ñuul ke ñambaas bu wert ke ñambaas bu bu la bu ngeen dajee rek di xuloo kii ne ko lu tax nga koy ñambaase bu wert te bu ñuul nekk bi mu ne la bu ñuul bégg mooy diine yu ñu ñambaas bi ne mais suñu ko bàyyi woon ca nam ko tëggee woon sibqat allah wa man ahsanu min allahi sibqa wa nahnu lahu abidun nañ ñu xotti la woon mbir mi perkaal bi mu set wecc kullu mawlodin yooladu alal fitra nee na kenn ku nekk ba muy judd mi ngi judd ci mën a gëm yàlla ngëm yàlla gu set wecc ci sax la judd fa aqim wajhaka li diini xaniifan fitrata allahi allati fatara yàlla kenn ku nekk ci ngëm la nga leneen lu ca xew nag dañ ko caa njàmbaas moo tax mu ne fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yu yumajjisaanihi loolu way jur ya ña ko doon yar ñoo ca njàmbaas def ko yahood yar ko yarul yahood yahut tekkiwul ne dañ koy dal ko demal doomub yahut déet mais buñ ko yaree jikko yahut melokaan woo xam ne bi yahut a ko baaxoo mel sa njaboot mel ko def nga leen yahut melokaan yoo xam ne nasaraan a ko baaxoo mel sa njaboot mel ko def nga leen di nasaraan doonte demuñu doon yi nasaraan ba tey ay jullit lañu tudd waaye seeni jikko lañu yor kon nasaraan lañ waaw waaw jikko ji la yàllay xool moom résultat bi tur yi moom amu ci solo aw yu majjisaan yi wala mu yor jikko yoo xam ne doxin woo koy doxe muy jaamukatu xelam kooku itam boobaa kon def nga kum majus waaw kon ñu xam ne kon pas-pas bi nga xam ne moo mën a aar nit ki man koo tax a def li yàlla digle il faut mu nekk pas-pasu tawhid moo tax pas-pas boobu war a nañ ci góorgóorlu bu baax ci di ko jéem a xam ndax pas-pas dafay jeexitalu ci barab bi ngay dund daf cee mën a jeexitalu aada yi nga fekk baax yooyu yëpp dañuy jeexital ci pas-pas bi moo tax jamono bu ne day laaj di segg jamono bu nekk day laaj di segg lu ci bokkul ñu génn ko waaw ndax dafa mel tool rek xam nga tool boo jiwoon ñëw toog doo tax nga am tool bañ bañ lañ ko ba nit ci tudde wuñ ko jikkat mais baykat lañ ko tudde dañ naan ñii ay baykat lañ duñ naan ay jikkat lañu te bu ko jiwul doo doo doo am tool waaye xam nañ ni ji dong ñëw toog du tax a am tool mbay maay tax am tool moo tax ñu far tudde ko baykat waaw waaw baykat xam ku demoon ni bay dong te jiwoo doo am dara waaw waaye nag ku jiwoon itam ñëw toog ba sama sëbee ba léegi nga toog fi ba nga gën ne nga naaw seeti sama tool ba ba xam soo demee mooy nga fay fekk waaw kon ah, ndax lan lan moo waral ba nga jiyee ba noppi boo ko bayul doo am tool mooy daa am leneen lu fay sax loo xam ne boo ko fa jiwutit mu sax ñax ma ñax ma dafa nekk naka noonu nag moo tax yow itam soo jiyee sa ngëm yàlla gi moom itam dafa am yu fiy sax yuy sax xol bi xol bi suuf la bala du tayib suuf la soo fi jiyee ngëm yàlla ba noonu leneen dana fa sax lu booyal ngëm yàlla ga bëgg alal dana daal di ñëw sax ñax yi bëgg alal ñëw sax ci sa xol ñax yi bëgg adduna ñax yi kiñaan ñax yi rëy yooyu yëpp day daal di sax ba booyal ngëm yàlla ga nga ne woon ji ko fa booy na léegi bëgg alal nangu na ko bëgg alal nangu na sa toolu ngëm yàlla ku fa ñëw léegi mu bëgg bëgg alal lañ gis waaw waaw tool boo xam ne boo ko dàndee léegi ñax ma ngay seen ca kaw boo ñëwee yëddoo nga seen benn benn boo ñu gerte ca biir kooku mooy da koo bëy da koo bëy moo tax kon itam nag yow itam boo jee kalimatu laa ilaha illa allah da koy bay bay mooy ngay sori parce que bay moom gàncax moom ñaar rek la laaj mooy nay am ndox mi koy dundal li ko yàq na koy sori muy am ñax loolu rek la ne màggal gi moom defoo ko waaw ma mënoo koo màggal a antum tazra'unahu am nahnu zari'un yàlla ne ni seen tool yi yéen ko bay wala maa ko bay ah yow mi naan sama tool bayoo ko de waaye yow nañ la ci sant daal yow mooy amal jiwu rafet nga ji ko suuf su baax même ndox mi sax moom yàlla boole ko indi gis nga mooy ni munu andi la alxuraan alxuraan da ko andi gratuit gis nga téere yi moo ci gën a baax mais moo ci gën a yomb waaw da nga gis téere buy jar ay cinquante mille ay nangam alxuraan moom nga dem ñu wàlla cinq cent wala ñu may la ko ah gis nga yàlla da ko subventionné gratuit wala xad yassarna alxuraan li dikri fa hal min muddakir da ko yombal ba yombal am gi fekkoon dañ ne alxuraan tey million lay jar 4 million lay jar ñaari million day gis dëkk bu tund lëm du ñu am kaamil ñu ne la tund yu yëpp kaamil amul waaw wala nañ ko di sa jënd kaamil waaw <laughs> nañ ko di sa jënd kaamil waaye gis ko ko kenn mënu amul yàlla ko yombal yàlla yi doomu aadama yi mënta ñàkk yëpp daf ko yombal waaw boo ko seetee ci même yi ñuy dunde fi mu ne yi ñuy dunde xoolal ndox ndox parce que doomu aadama yi muy yi muy soxla pour dund noyyi noyyi mooy li ci jiitu bi gën a nécessité moo gën a yomb bi nga xam ne li nga ko mën a muñ moo gën a néew boobu la gën a yombal mooy noo xoolal noo yi ban effort nga ci def foo jënd ci ngelaw kenn jaayu ko foo dem ngelaw laa ngi fi waaw moo gën a yomb mu mi ci toppaat moom laaj na def effort tuuti waaye ba moo gën a xam ngeen ne litre ndox gën a yomb litre diw foofu ah te litre ndox a gën de litre diw boo ko tegoon fi bëgg di ko naan boo ci naanee benn kaas bi toog <laughs> du te gis nga la muy jàpp waaw gis nga suñ borom moo ko yombal kon borom bi tabaraka wa taala moo yombalal doomu aadama yi seenu dundin ci li seen yaram laaj ak li seen ruu laaj yaram wi li mu laaj mooy li koy dundal ndox mi muy naan ak ñam mi muy lekk ruux gi li koy dundal mooy alquranul karim moom it gis nga ni ko borom bi tabaraka wa taala jàpp ndalale mu gën a yomb ngëm googu nag muy tawxid boobu nga xam ne moom la suñu boroom wax ne ku ci yor bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yoroon yow yaa gindiku nit ñi dañ cee rawante bu baax moo tax imaam ibnul qayim rahimahullah di wax ne fal muslimuuna kulluhum mustarikuuna fi idyaanihim bi shahaadati an la ilaha illa allah wa tafaawutuhum fi macrifatihim bi madmuuni hadihi alshahaada wa qiyaamihim bi xaqiha baatinan wa zahiran amrun laa yuxsiihi illa allah mu ne jullit ñëpp dañ ñoo bokk di wax laa ilaha illa allah kooku kuy jullit rek dana ko wax waaye ni ñu rawaatee nag nee na ci xam li mu ëmb moom laa ilaha illa ak taxaw gi ñuy taxaw ci aqi laa ilaha illa allah nee na nit ñi rawaatee dayoo la boo xam ne yàlla rek xam na mu toll rawante nañ ci lool lool lool lool doonte nag ñoom ñëpp bokk ci wax ji ndax ci xam gi ñu xam li mu ëmb ak taxawe gi ñuy taxawe ci àq ji loolu ci lañuy ñuy mën a def ndigali suñu borom tabaraka wa ci la ñuy mën a bàyyi ay tere loolu moo tax kon dana am laaj boo xam ne fokk jullit dana ko laajte li benn waaye waxoon boo xam ne yàlla dafa defoon mu tuub kon Amérique di jàngal di gëstul boppam lislaam ba gis ko ba tuub ba nekkul jullit doog faa jóge nag tukki ci réewi jullit ñi waaye daf ne maa ngi sant yàlla mi ma wan lislaam lu jiitu mu may wan jullit ñi maanaam bu ma njëkkoon a gis jullit ñi duutuma seet lislaam maanaam melokaan yi mu gis ci ñoom ni ñu mel jullit ñi fi mu ne li gën a bari ñoo nekk ñuy baari nit ñi ci lislaam parce que soo yore melokaan boo xam ne kenn kii moom xemmemu ko bëggu la saxal mel noonu kon kooku la nga nekk soo ko ci di xëcc tam jàpp ne loola moo la melal nii moom loolu la jàpp moom loola melalu ko ñàkk a nekk ca loola sax moo la melal lii waaye kon noonu ngay tuddoo te moom mënu koo séparé mënta ràññeet la diggante l'islam a ngi nii jullit a ngi nii moom lu jullit def rek l'islam la kon comme ni ñu koy gisal léegi rek yépp njaaxum goo xam ne xew na rek wala ab jullit def na ko kuy tuddoo jullit def na ko ñu askanale ko l'islam moo tax mu ne yàlla mi ko wan l'islam ba mu xam luy l'islam ba pare te booba da gisul ab jullit boobu moo toog di gëstul boppam rek gis lim jàngale ci tawxiid gis lim jàngale ci jaamu yàlla gis lim jàngale ci jikko yu rafet ak jëflante bu rafet ba mu xam ne lii moo gën a kawe bépp dundin ci kaw suuf mu jël ko gëm ko dund ko lu yàgg rek doog a tukki nag daje dem ci réew moo xam ne ay jullit a fa ne wala ñuy tuddoo yu jullit a fa gis nañuy mu ne mi ngi sant yàlla mi ko wan l'islam lu jiitu mi koy wan eh, ñii loolu moo tax kon danañu war a laaj ne waaw su fekkente ne suñu borom yii muy santaane yépp ñi gëm yàlla la ko sant li muy tere yépp itam ñi gëm yàlla la ko tere waaw ñu mën a boolee ne gëm nañ yàlla ba noppi ànd ak di def yooyu yépp yaa yolla si na amanu lay wax yaa yolla si na amanu innama alxamru wal maysir yaa yolla si na amanu taqullah wasaru ma baqiya min arriba looy tax ñuy gis ñuy tuddoo ay jullit di naan sàngara ak kast ñu gis leen ñuy jëfandikoo riba wala ñu gis leen ñuy wor wala ñu gis leen ñuy sàcc wala ñu gis leen ñuy wax lu dul dëgg te suñu borom tabaraka wa taala tere woon loolu ñi gëm yàlla ñoom ñu ne boole dañ ñi ngeen gëm yàlla ni ba noppi di def loolu loolu kon day tax day war kon ñu xool euh, ngëm yàlla googu aqida boobu mbaaru dafa am jàngoro ju ci nekk li ñuy tudde al inxiraaf parce que ñaar am al istiqaama mooy lu jub jaar yoon bi mu war a jaar al inxiraaf mooy lu dérapé oto boo xam dafa dérapé wàcc tali bi waaw bi moom mooy ki ne coow ci yoon wi moo tax borom bi ne inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu falaa xawfun alayhim wala hum yaxsanun waaye inna alladina qaalu rabbuna allah summa inxarafu ah, ñooñu nag moom mënatuñoo dem pas-pas boo xam ne nag dafa dérapé am na ay mazahir am na ay signes yoo xam ne naa ci tudd yenn yoo xam ne ku yëg ne yow pas-pas boobu yaa ngi ko booleeg bi bi nga yor xamal ne kon sa pas dafa dérapé moo tax mënulaa tax a def li yàlla digle da ngay gis koo xam ne jaamu yàlla yi dafa jafe ci moom jaamu yàlla dafa jafe ci moom dafa diis ci moom li ko waral mooy pas-pas bu dëgër bu ko attan moom la yorut parce que jaamu yàlla yi ñu ngi tegu ci kaw pas-pas bi da koy téye mazahir yooyu muy signe yooyu nga xam ne dana wane pas-pas bu dëgg bokk na ci al i'tiqad maanaam doomu aadama bi fas ne nit ki am mbaaxam bu baaxee bañ yaakaar ci moom mu baax wala mu am xam-xam wala mu am daraja wala mu bokk ci askan woo xam ne ñooña loolu lañ leen xamee ak mbaax ak xam-xam bokk googu mu ca bokk wala am sax gi mu am xam-xam bi loolu may na ko ci yàlla daraja ju ko eggale ci mën a jëfandiku ci wërsëgi jaam ñi maanaam ku ko neex mën na laa jox wërsëg ku ko neex mën na la ko xañ ku mën na laa yokkal saw fan ku ko neex mën na koo gàttal ku ko neex ku ko gërëmloo mën ngaa texe ëllëg ku ko merloo mën ngaa texee ne maanaam soo fasee ne doomu aadama bi cër boobu dana ko am ci xam-xam bu mu am wala mbaax bu ñu yaakaar ci boobu wala judd bu mu judd tax nga jàpp ne am na cër boobu kon yow sa pas-pas am na sikk aqida mun xarifa la moom la borom bi naan wa yaabuduuna min dunillah maa laa yadurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluuna haulaai shufaaauna inda allah borom bi posé question ne qul atunabbi'uuna allaha bima laa ya'lamu fi samawati wala fi l ard ah yéen da ngeen a nomeel yàlla ay représentant yoo xam ne yàlla moom xamuleen agréé wu leen nga ne ko yàlla ñii ñoo la fi représenté moo tax mu ne atunabbi'uuna allah bima laa ya'lam fi samawati wala fi l ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun mu ne ngeen di jaamu ñoo xam ne mënuñu leen a lor mënuñu leen a jariñ wa ya'buduna min dunillah ndax ibaada du rek koy dem di sujootal ak di raam déedéet euh, Adi ibnu Xaatim dafa nekkoon am nasaraan bi mu dugg fii ci lislaam dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jàng inna kasiran min al ahbaari wa rahbaan la ya'kuluuna amwaala naas bil baatil ne fóore yooyu ak seen labbe yooyu dañuy lekk alali nit ñi ci baatal ndax nit ñooñu dañ leen di jaam mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam ah nun kat jaamu wuñu leen mu ne ko ndax duñu leen digal ci seen bànneex bopp ngeen def mu ne ah kay ñooñu koy luñ ñu digal duñ ci laaj dalil waaye dañuy daal di def mu ne ma ndox duñu leen tere ci seen bànneexu bopp ngeen ba mu ne ah kay suñu dig tere dañuy ba kon képp koo xam ne ku lay digal ci bànneexam la ngay def lim la digal du la wax ne ci yàlla la jóge wala ci yonente bi alayhi salatu wasalaam la jógee lim lay bàyyiloo itam du la wax ne yàlla moo ko bàyyilu wala yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko bàyyilu kooku yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na yaa ngi koy jaamu moo tax borom bi ne wa ya'buduna min la ñi ngi jaamu leneen lu dul yàlla loo xam ne mënul leen a lor mënul leen a jariñ ba noppi nag ñu wax ne ñoom wa yaquluun ñoo ne haulaa i ñii daal sufahauna inda allah ñoo leen nome ñoo leen nome ne haula sunu gaa yi sufahauna inda allah ñoonu yaram fa yàlla borom bi na waaw qul nee leen atunabbi'uuna allaha bima laa ya'lamu fi samawati wala fi l ard ah waaw yéen da ngeen am ñu leen nar a ramu fa yàlla te yàlla xamagul ne ñooñu ay ramukat lañ yàlla ci boppam xamagul ne ñooñu ay ramukat lañ yéen ngeen yéen yéen a koy xamal yàlla lii lay wax yàlla ne ko ñii ñooy ramukat yi xamoo ko woon noo leen noo leen ay ramukat waaw wala bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard mu ne subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yàlla day ak màggaayam nag lañ koy bokkaale mu ne maa kaana li bashar mu leeral leen ne len cër bu doomu aadama am kaay leen ma waxal leen cër fa muy yem maa kaana li bashar jaaduwu ci mbindeef an yu'tiyahu llahu alkitaaba yàlla jox ko téere fàtte ci moom ab téere wal xukma jox ko atte jox ko pouvoir jox ko sañ-sañ wan nubuwa wala sax mu jox ko ak yonent xam nga yooyu cër moom benn bu ko kawe moom amul xam-xam boo xam ne yàllaa la ko jox ak ngóor goo xam ne yàllaa la ko jox ak yonent goo ak yonent yooyu moom mooy cër yi gën kawe ci doomu aadama mën am mooy ne su amoon loolu ba pare nag jaaduwul ci moom nag summa yaquuna linnaas koonu ibadan li min dunillah mu daal di bëgg sukkandiku ci qualification yooyu mu am mu ne comme yéen ñi ko amul nekk leen samay baadoo la borom bi nee na sañul lool de loo raw raw raw nit ñi ci cër yu ma la jox taxul na ngi wëlbati ko di nekk say jàmm walakin waaye loolu sañ koonoo rabbaaniyiin na jëfandikoo xam-xam bi ne nit ñi nekk leen jaami yàlla na jëfandikoo pouvoir bi doole ne nit ñi nekk leen jaami yàlla bima kuntum tuallimuuna alkitab wa bima kuntum tadrusuun gis nga nit ñi soo leen bëggee ne nekk leen jaami yàlla foo koy jaar mooy da leen di jàngal xamoo problème yu baree baree baree baree bari li ko waral rek mooy ñàkk jàng ba sëriñ ma ne am nit ki tudd sëriñ ba noppi de te du jàngale booba la booba la yëf yi booba la dérapage bi am parce que mel ni métier moomu walaa bal fu dul foofu rek lañu ko nangu fii ci Sénégal waaw waaye leneen lu man a doon dañ cee teg ancien waa ji tabaxatul ba noppi ñu naan maçon la di ko fay te du tabax wala ñu ne téer la woon waaye bàyyi na waaye ba léegi ku am sa mbubb ñëw jox ko te moom ñëwatul loolu bu ñu xamee ne ñëwatul kenn duut la ko yëkkati kenn duut la yëg mbubb bu ñu xamee ne tabaxatoo kenn duut la tabax woon kay tuddee sëriñ rek la ñuy xam ne jàngaleetul ba noppi ñu wane ne moom dañuy sàkku ci moom am jàng taalibeem lañ parce que taalibeem mooy kuy sàkku li ngay sàkku ndax ko ñu ngi ko fiy joxe taalib yatlubu shay'an taalib mooy kuy sàkku ndax li ngay sàkku nag ndax ñu ko fiy joxe nag li ngay sàkku mooy ku la xamal diine mais buñ ko fi xam lee xamleetul ah loola rek boobaa boo ko fa continuer di ko fa sàkku doo fa jot ndax mbir fu mu nekkatul boo ko fa dee wut itam nag doo ko jot moo tax borom bi ne bi ma kuntum tuallimuuna alkitaab ci li ngeen di jàngale ci téere bi ak li ngeen di jàng ci ngeen di defi nit ñi jaamu yàlla ndax boo gisee doomu aadama itam di ëppal ci nit fu ñu koy teg li ko waral rek mooy ñàkk a jàng mooy ñàkk a jàng waaye su fekkoonte ne da ngeen a bokk nekk ci yoon wi mu wan la yoon wi ba nga xam ko ne ngeen ànd di dox nga xam ne yoon wi ngeen bokk wattabi sabila man anaaba ilay loolu la borom bi wax toppal yoonu ki jëm ci man yoon wi yoon wi ngeen bokk de wattabi sabila sabila ji doo ko génn néew rek ittabi man anaaba ilay toppal ku jëm ci man ndax ki jëm ci moom mën naa jàdd mën naa fakkatalu te bu jàddee waroo jàdd bu fakkataloo yéen yow bul fakkatalu da nga ko war a dimbali yëkkati ko mu jóg ngeen dem waaye su fekkee jëmmam nga topp nak su jàddee nga jàdd bu fakkataloo nga fakkataloo ndax dakaa lu mu def rek nga barkeelu ci moo tax borom bi nekkoon toppal yoonu ki jëm ci man bala koo mën a topp rek day fekk mu xamal la yoon bi ba gisee saxaabatul kiram xam ngeen ne ku toll yonente bi alayhi salatu wasalaam ku ko mën a wuutu ku ko mën a wuutu li muy tekki mooy da leen a jàngaloon da leen a jàngaloon da leen a xamaloon ba bi ñu ko gisatul dara robatut mbir yi dafa daal di continuer dara taxawu ndax li muy tekki mooy da leen a jàngaloon ba ñu xam di leen waaye su fekkoon ne mbir ma ci moom rek la yem ah kon bu fa jógee kenn du mën a continuer mbir ñaareel ba ku fas ne ak mbaax ci diine ak yiw dees na ko mën a amee ci askanoo ci ku ñuy askanale loolu maanaam ñu askanale juddu ci ay way wayjur yu baax rek kon daal ngay baax nga daal koy fas ne kii kat moo leen gën yéen ñëpp ñu ne waaw foo teg ne moonu gën nga ne leen kii ko jur baayam dafa gën seen baay waaw kon loolu la leen gënee ku fas loolu yor fas-fas bu mel noonu ba tax ne kooka moom ngay daal di jiital ci diine waxam nga gën a dégg ci wax yi koo jàpp ne bokkul la yorul sant ba mu yor wala askanawul fa mu askanu donte kooka ko ëpp xam-xam foofu ngay gàggante ci foofu ku yor fas-fas bu mel noonu fokk sa fas-fas dana jàdd sa diine dana jàdd ndax nag diine nekkul foofu wax mooy yéen doomu aadama yéen ñëpp yéen a bokk nu ngeen fi ñëwee ni ñu fi ñëwee moom ñëpp a ko bokkle yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa waxaat ne wallahu axrajakum min butuuni ummahatikum laa taalamuuna shay'a ku fi andaale xam-xam amu fi waaw dañ koy jàng laa taalamuuna shay'an xamu leen dara di ngeen di jóg wa jaala lakum as-sam'a wal absaara wal af'ida la'allakum tashkuruun kon ab course boo bëggee mu maandu départ ngay tolloo te yàlla def noo course la def ne saabiqu saabiqu course leen course leen boo xam ne da ngay yàpp doxal yoxal kenn mu daw kilomètre ba doog nga doog a soufflé déedéet te ki nga xam ne dafa judd rek gën kooku dañ ko yoxal kooku ko yoxal defagul dara la mais dal na muy gën ak ah, kooku nu muy coursé teeg moom kooku mënatoo coursé teeg moom kon moo tax départ bi ñëpp a ko tolloole moo tax ñoo bokk nu nu fi ñëwee bu dee judd koo fii naw am na ndey ak baay xalaq naa ko min sakarin wa unsa koo fii naw